nga mengale ko ban yitte lañu am ci am symbolique ndax li waraloon tragédie boobu weesuwul lu mel wala ñu def mbir ma fu ko war a def ak ni ko war a defee ñu ñàkk ko def ci càggante wala ci teef ba mu jur musiba tey jii ñu ngi wax mbënd mi mbënd mi lan moo ko waral lan la def ci at yi weesu yépp ci milliards yi nga xam ne nañ dugal nañ ko ci ludul li ci upp ay nit ko dam sen up li ci upp ay nit ko dam sen poos ñi ngi wax mbirum xale yi jël gar gi la ko waral est ce xam ngeen ni li gëna metti ci li moy mbir dafa am ñaari patch dafa am jël lu upp neub ko askan wi muy lu garaaw a garaaw te ministre de na ci wax léegi jël lu ëpp ñu ne la loo jël rek war nga koo bind loo génne rek war nga koo bind nga jël téeméer bind ni juróom fukk laa jël loolu war nga askan wi war nga ñi nga xam ne wóolu nañu senegal ba jël seen alal di ko di ko dugal ci réew mi donte nag ñiy labal nag waye ki ngay lebal day fekk nga yaakaar ne mën naa fay waaye loolu benn pàcc bi rek la benn pàcc bi gën a garaaw mooy gannaaw bi ñu defee loolu ba xaalis bi dugg milliards yi dugg mooy pexe yi ñuy def ñoom pour li bëri ci milliards yooyu au lieu ñu yóbbu ko fi ñu waxoon ni fa la war a jëm ñu fexe ba détourné ko dugal seen poos loolu nag ci fan yi di ñëw dañ ci gën a génne ay détails ndax li ñu génne ci alal ci réew mi yéen a ngi dégg ay ay ay ay ay ay milliers de tonnes de de kilo d'or loolu lu tuuti la ci li ñu génne ci réew mi te lépp nag ci alalu réew mi la lépp ci alalu réew mi la waaye foofu loolu fu mu jóge xaalis bii ñuy wax waroon dugg fi mu war a dugg ñu dugal ko feneen fu mu warul dugg ba pare ndax sénégalais yi ndax suñu partenaire ne jëluñu xaalis bu toll noonu waaye lu gën a néew loolu la moo tax débat bi ci lii la war a porté peuple bi laay waxal bu leen kenn divertirati ci wax bu amul solo lii moo tax sen Sénégal nekk ci niveau bi mu nekk lii mooy suñu défi ñun moo taxoon mu jaadu balaa ñuy dem fii fukki fan incha allah ndax dégg naa gars yi amuñu programme que projet bi amul ñoom ñu koy wax sax gëmuñu ko ndax ñoo gën a xam ni projet bi am na waaye lépp dañ koy teg ci taw fii fukki fan gën saa gudd suma juumul danañ ñëw andil leen maintenant projet bi nga xam ne moom la ñu présenté woon ci programme bu président Bassirou Diomaye Faye ñu andil leen naka lañ koy farañ fàccee pàcc par pàcc ak naka lañ koy doxalee <coughs> mais mënuñu woon dem ci loola. defuñu lii ñuy def nii muy lu am solo moo tax ñi nga xam ne nag ñooy ndey mbill gi ndax temps génne nañu livre blanc defe naa ñun suñu génnee livre noir très noir lay doon waaye ñi nga xam ne ñooy ndeyu mbill gi ñoom nañu génn tontu bu dee li ñu wax amut ndax lii def nañ ko ba mu pare ñu partagé ko ak suñuy partenaire fonds monétaire international jot na ci banque mondiale jot na ci lañu war a def def nañ ko te lu nit mën a vérifier la ci anecdote bi élection bi passé boobu ñu ngi fii hôtel Azalai président ne ma il faut ñu wax ak ministre des finances doo ko ma laajte numéro am woo ko ne ko dañ la soxla mu fekk ñu Azalai ñu ñëw daje foofu amoon nañ suñu njott ba pare waaye bi mu ñëwee xam ni caaf xam na ba noppi ci biir waxtaan bi la ñu ne way dette bi demewul noonu dañ koo xaw wàññi déficit bi dañ koo jaxase waaye demewul noonu ñu ne ko waaye yow loolu noo ko mënee bind ci budget bi ba noppi ñëw fii taxaw naa ñu dem ça veut dire que su doon yéen yéen a jàlla boobatul Sénégalais yi duñu gaaw a xam ni nii la demee te balaa ñu koy yéeg rek mooy c'est trop am na sax masse salariale bi te boobu ba léegi service ministère des finances ñi ngi continuer di jeex ci biir budget bi ndax dañ koo tasaare dugal ko ci ay lignes yu bëree bëri bëri ba nga xam ne jafe naa dajale loolu nag lu garaaw a garaaw la moo tax ñoom ñi nga xam ne defe naa ñoom rek war a wax fi mu toll nii ñi jaar fii ci ministre des finances di Amadou Ba di Abdoulaye Daouda jàlloo di Moustapha Ba. ki don doon sant muy président Macky Sall ñom rek ñoo mëna a taxaw layo imma ñu nangu ni nii la démé wax nak li tax ñu def ko imma ñu démé demeewut nañu génné les preuves ndax écriture yaa ngi fii kon am solo la té ñuy wax askan wi ni li andi li ñaare moy yakamti ku ñu faal rek yang ngi ci horizon électoral ah d'ici 4 ans d'ici 5 ans dañu war élection té il faut gaw gaw gaw ma tabax ben stade wala ñaari immeuble pour ñu né waja ngi liggéey réew dañ koy tabax ci tay ak dal brick après brick bo buggee am kër gu dëgër bu dé tappale rek ñun mënoon nañ ñëw def li ndax buñu toggé fu dé la bailleur di joggé yéen ngi gis image chaque jour ñu recevoir des bailleurs yu jël privé ñëw waxtaan dem kuñ ci wax woon lii ne la ñëwal dugal sa xaalis léegi mu àndi xaalis bu dul jeex bu ñu toogee léegi xaw ma ñaar te offre jot suñu neexoon ñu nangu ko mais parce que dañoo soxla gaaw gaaw nakaru xol parce que ñàkk bëgg sa réew mënul weesu lii moo tax jox da ñëw rek bay ji ñu ndekete forêt classée lañ jox faaw rek nga am liggéey bu bari boo def doog a mën ji waaye ñi ñu dugal ci loolu am lu ci wax rek ci li jëm ci wax wax di ci bari